cuun waaye soppe Serigne Saliou Mbacké li nag Dakar Buzz da ko mën a am Omaro def ne ma damay wax jox ci yow wax ci njéeme lépp di Dakar Buzz Omaro bu Serigne Saliou kon ma bàyyi jéeme mu doxal rek jéeme doxalal ma doxal doxalal yow ah, doxalal maa ngi lay fay baa nga jàmm sama xarit sama doomu ndey Fadel borom Dakar Buzz borom Sénégal loo gën doyu di jaan njéeme sama jigéen sama xarit di ko ñaanal liggéey bi lépp dafa lii de xanaa ceeb bi wax boobu su la bëgg am na kaani am na jën bu mag am na doora am na beurre am na soppa. ak tuuti soosu crevette de ah. waaw bàyyi jéeme laaj tey gis nañ la ci ngénte Balla Gaye bi dañ la doon laaj rek lan mooy sa relation exactement ak Balla waaw sama diggante ak Balla Gaye dañ relation bu yàgg la relation bu dëggu la relation bu bari dool la parce que Balla Gaye de suma lépp la Balla Gaye suma seex la suma xarit la suma doomu yaay sama diggante ak moom du làmb sama diggante ak moom du télé du animation du way du bëre Serigne Saliou moo nu boole. kii mu tuddee doom gi tey moo tax hasard amul maag Balla Gaye weer wii di weeru novembre la sunu ànd def fukki at novembre 2009 la ñu xamante woon sëñ Mbacke Diop bëgg lu baax sama xarit baa ngi noonu mën naa seere li may wax ba tey novembre 2019 kon maag Balla Gaye weer wi la sunu ànd def fukki at yoo xam ne sëñ Saliou Mbacke moo lal ànd bi ca fukkee la at ba mu jur doom tuddee ko Serigne Saliou kon Serigne Saliou nangu na sama ànd ak moom yëg naa loo xam ne ci sama xol bi bi ma dalee ànd ak moom ak tey musuma ko yëg tey laa ko yëg te xam naa ne tey laa koy mujj yëg barke Serigne Bamba ñu gis la nga def singal bu doy waar hmm. waxati ci lu doy waar hmm. ah yàq ko yàkkati ko ku doy waar loo ci yëg waa mais kontaan soxna Moumi Kébé mu Serigne Saliou Mbacke mu Serigne Ablaye Tege kooku baayam ja alaaji juga kebe moo liggéeyal Serigne Touba lu ñu ko waxee moo liggéeyal Serigne Bamba lu ñu ko waxee kon tey bu yàlla dogalee doomam ji mu dond ko waaw mu jër mu jër mu jër mu jël li nga xam ne mooy tànkam wa ak ak relève ba ak fa ko fa ko fa baayam tegoon mu teg ko fa di xuus ba ñun ñu mën koo gis di ci bëgg di ko sargal ak di ko delloo njukkal loolu sant yàlla kon jéem a bàyyi la nga doxal ma wuyu ji Balla Gaye 2 ci biir. waaw.